في كل سهر وفي سفر حمالي على ماء مع الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حمالي على ماء مع الأبس والسفر Huile Salam Sénégal diw la bu ñu raffiné ànd ak qualité bu jéggi dayoo defaree ko ci gerte bi ñu bayee Sénégal entreprise Bawol Invest SA di groupe Sidio taxawal ko huile Salam Sénégal qualité pour l'Afrique et le monde depuis Diourbel huile la Salam Sénégal diw la bu ñu raffiné ànd ak qualité bu jéggi dayoo defaree ko ci gerte bi ñu bayee Sénégal entreprise Bawol Invest SA di groupe Sidio taxawal ko huile Salam Sénégal qualité pour l'Afrique et le monde depuis Diourbel hamani ala ma in ma al absa wa safar